alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad sahani liwatani bihi nafama lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla def na ni daaru tanzil euh, ñu insérer fii li nga xamante ne moom moo nekk euh, école française donc mu nekk loo xamante ne daanaka mun naa ne trois ans ça fait trois ans maintenant donc ci kaw loolu ñu ngi si def ay jéego yoo xamante ne euh, lépp loo xamante ne école française yi ñoo ngi koy def ñu nit ñoo ngi koy def pour que rek ñu mun a am résultat donc yaakaar naa ne aussi alxuraan mooy lépp waaye dañu toll jamono boo xamante lépp looy def rek faaw nga boole si lu ci mel ni francais ak yeneen ak yeneen donc day loo xamante ne daf ñuy permettre aussi ñu am ouverture daf ñuy permettre aussi ñu xam euh, lu baree bari tamit euh, donc ma ñëw si ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a examen cette année si donc ñu ngi si ñu ngi am six candidats donc ñu ci ki si jiitu ñu ngi nekk Cheikh Ahmadou Bamba Diop di Khadim Diop euh, keneen ki di Mohamed Fall Euh, topp si Cheikh Bassirou Gaye ñu naan ko Bass Gaye ak euh, Khadim Ley Abdou Lahat Meng ak euh, Abdou Khali taal donc ñoom ñi ñoo war a présenté wu année bi ci lu jëm examen CFEE ak entrance sixième donc ci loolu noonu examen bi mu ngi am le 23 ak le 24 juin boobu mooy épreuve écrite donc le 19 juin ñu ngi war a am EPS éducation physique donc xam naa ni dañuy dañuy dem li nga xamante ne moom mooy fête yi euh, à partir tey donc war nañoo am fête di 15 jours donc xam naa ni ñoom xale yi dina leen fekk seeni kër donc ci kaw loolu aussi di ñaaxaat parents yi ñu gën a bàyyi xel si si si xale yi nga xamante ne ñoom ñoo war a def euh, examen entrant euh, CFEE ak entrant bi. some internet pour le développement, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Internet, l'école d'art Tanzir, merci tata Oustaz merci tata Fatim merci de Saz merci les jeunes c'est ça Daaru du ànd bu tere badara sa yaay bu ko jàngal xaaliso yar ko si muñ ak tey yaay solidarité yaay solidarité solidarité dimbali sa morom baax na adduna bi yaay nu gàtte faxas bu ndaw ndaw laa sa doom soo ko yarul dinga la dugal coono woo liñ ci tàmbalee nag mooy li waral jotaay bi rek ni nit ku baax ubbi barabam def ay xale ngir bëgg leen a yar ci ak mbaax am ay waajur ñoom ñu bëgg seen doom baax ñoom ñu yëkkati daal di yóbbu foofa jotaay bi yaakaar naa looloo looloo ko waral dañuy ñaan nag nii mu mel tey ba xol yëpp sedd ba am na benn benn seen xol sedd na ñu ngay génne ay rongooñ looloo xol bu sedd ci ci loolu la yem kon lay tax ñu mën a gën a jëmmal jotaay bi man koo def ay ati at mu gën a yaatu moo yooyu daal di continuer lii rek am sa njaboot yóbbu ko ci mu jàngi alxuraan ci ginnaaw weer wi nekk weeru alxuraan ju moom yàlla la am yàlla boole ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kaneen kum jokk ci moom mu doon sayxu murabbiyam bu koy àggale ci yàlla suñ bàyyi ko suñ jógee ci yàlla mi nga xamee ni moom moo wàccee alquran wax ni moo ko wàcc ca moo koy sàmm kon képp ku ca nekkaale sàmm ga muy sàmm alxuraan da dana la sàmmaale waaw inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizuun waaw kon loolu dong daa jaroon jox lépp sa alxuraan ñoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni ki gën ci nit ñi de mooy ki jàng alxuraan ba pare di ko jàngale loola nag dégg gi yomb na ca jëf gi xaw a jafe ngir lu baax daa yombut ca mbir saa yoo ci nekkee ca nekkewoo ci na nga ca war a nekkee rek day mel ni nekkoo ca day mel ni nekkoo ca kon nag su waxee ki gën nga xam ne daa bàyyi ñëpp wax ne kii moo gën kon kookee la tax mu gën nekkul lu yomb bu ñëwee ci ci Serigne Touba at moom moom léppam alxuraan la waaw waaw wax na ni bi mu nee fu mu mën a dem rek alxuraan moom moom la doon àndal. kon ñun ñet ñun ñettasee fii nag maanaam ñépp looloo ñu boole kon daal ñuy gën a amaak ak soññ ak ñaax ginnaaw biñ santee waajur yi ndaxte lii yombut. ndax sunu borom bëgg la te bu la bëggee dimbali la. dañuy faral di wax mujj gu rafet ci àdduna bu dee am na benn képp lay doon mooy mujjee kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi saw làmmiñ ndax fa nga koy defee rafetul ndax bàmmeel moom rafetul kuusu bàmmeel mooy mujj go mujj mujj ci àdduna te kuusu bàmmeel bu rafet man xaw ma ko waaw bu fekkee ne nañ ak mujj gu rafet am na mooy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saw làmmiñ bu fekkee àdduna la moom day wor ndax kuusu bàmmeel rek la jëm ak noonu dafa am loolu nag jur doom taxul nga jur ko dénkaane yàlla la sunu boroom ci xekk maam la la ko dénke ndax aadama wàcc na fi te amul ndey amul bàyyi xawaa wàcc na fi te ci maam aadama la jóge ci faaram ba góor jàppee ni dara la ci sax ba mu nee soxna Mariama kaay toog da koo may doom te góor newu fa wax ni pour pour pour pour wax ni soxna yi góor ñi yóbbu luñu leen dara ba mu koy jox Seydina Seydina Isa alayhi salaam góor newu fa ko kattanu yàlla la te lu mu digee sëñ Cheikh Ahmad Tijaanil day wax ni alxuraan ku ko jàng ku ko dégg dëgg dëgg mënoo ko diglu waxtu ki koy diglu dëgg te xam ci dara toog di ko diglu waxtu yaa fi man li sunu borom di tëkk ci alxuraan dama naan bu ko nit ñi doon dégg xam naa arab bi nga xam ne moo nu gàllankoor suñu digganteek moom moo tax ba nit ñi dégguñu ko xayrul xalqillaahi alayhi salaatu wasalaam daan na toog ba ci ak garango ñuy sotti ko mu ne cey su ngeen xamoon li ma xam cey su ngeen xamoon li ma xam di ngeen néewal seeni ree te baril seeni jooy dingeen ngeen néewal seeni ree te baril seeni jooy Seydina Muhammad wala Saad ibnu Muhammad kooko bi muy faatu dañ ne ay malaayika ñoo ñoo ko yanu yóbbu ndax barke beeg mbaax geeg dëggu geeg lislaame geeg mooy murite gi rek te teewul yonent bi ba mu ko tiimee yaramam dafa daw ndax yëg ni bàmmeel la nga def liggéeyam mu ne bu kenn doon mucc ci mbëg ci ci tànc bàmmeel Muaz mi tëdd mucc tànc bàmmeel bu ci kenn doon mucc jëmm ji tëdd ci mu mucc ci kenn demu fa woonu téléphone ni nu li fi xew kenn newu fa ba ci yàgg whatsapp nu ni ñu li fi xew njort rekk la doxe la tax ñu rafet njortu nag mooy ki nga xam ni ba ko yàlla ne ñëwal ci kaw suuf dimbali jaam ñi ndax raama rasulillahi min ilahi kawni abdallahi wa xadimuhu yonent bi sallallahu alayhi wa moo sàkku ci yonent bi yonent bi moo sàkku ci sunu borom moo wàcc lëggéeyal ko sëriñ Muntaxa yàlla na fi doolee yàgg te suñu borom kattanal ko ba li mu bëgg ci lislaam suñu boroom mottali ko dafa ni sëñ Tuubaa bi ñu ko gisee ba bi ñu ko noppee gis ci boromam rek la nekk wax ju tënk na lépp bi ko gisee ba bi ko noppee gis ci boromam rek la nekk te suñu borom du jaawale de ñu fi toog ñëpp yor numéro téléphone benn chiffre boo ko manqué doo doo jot kooka te loolu dem ba képp la fi man amala saalian fali nafsi fa man asaha fa alayha liggéey bii nag yaakaar naa réew mépp xam nañu sëriñ Saliou ma ko joxoon ndax moo bind turu daara ji jox ma ko tudde ko daaru tansil loolu doy naa sant yàlla lii nu fi nekke nag du dara lu muy jéemu xeñtu mbooram rek ndax moom kat ni ko gone yi waxe yi la ko gën a yara yi la ko gën a loon sëriñ Tuubaa daraan wax ni sama kër gii de lu fi waay yóbbu dul yar yóbbuwoo dara ku fi bàyyi yar it bàyyi nga fi lépp moo tax gis ngeen melokaanu maam Cheikh ci yar teggin jëf liggéey góor góorlu ngir ëllëg ëllëg rek a jar liggéeyal te ñun xamul lu fay fekk wax jee bari rek kon nag nan góor góorgóorlu ci xale yi nga xam ne les l'espoir de demain àdduna yàqu na yàqu boo xam ni média yi. ak li ñu àddunay présenté ku moytul dina la fëkk ndax ñoom dañoo weddi yàlla inna sheytaan la lakum nag fattaxisu aduwa mooy seen noon moytu leen ko yàlla ni def leen ndàngam mu lànk ni duma ko def man ci lii laay ne te ku ma ku ne la yaxuy dan nawum ala siratal mustaqim ñoom ñëpp dinaa leen wàcce yoon wi waaye nag ndokk ba inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan am na ñoo xam ni doo leen mënal dara te ñooñu mooy ñu wéeru ci yonent bi mooy ñu wéeru ci sëñ Tuubaa rek di xees di xeeñtu sëñ bi ne ci lu baax fexe ba gone yii sax ci lii alxuraan rek mooy dëgg alxuraan rek rek rek mooy dëgg noo ngi leen di ñaanal ñu fi wàcc muy sëñ maam Mor sëñ Mor mii sëñ Bas anamu ana maam Cheikh ñoom noo ngi leen di tibbal ci sunu xol ñaan sunu borom ginnaaw yéen a ngi waaj a dem lépp lu ngeen duggati yàlla na yomb fu ñu leen dugal ngeen yokk fa seen xam-xam yàlla na ngeen doon muurum lislaam sunu borom sàmm leen ba li ngeen bëgg ci alxuraan sunu borom defal leen ko ndegam yéen di nekk ngeen fi mosu leen maa def lu ma naqari mosu leen ma ko wax mosu leen koo jëf ba tey li ngeen liggéeyal alxuraan. ñu koy feeñal nii yàlla na leen suñu borom sàmm seen rakk yi ngeen fi bàyyi it nag sunu borom may leen muurum alxuraan foofa nag alxuraan yàllaa koy joxe ustaas yi ki jàngale sax joxe wuñ ko def ndigal li rek la ñuy def yàllaay xool la ko soob mu def ko ci jaamam kon noo ngi sant ñëpp di daaneel kàddu yi foofu di ñaanal soxna aji si sa coono yàlla na la suñu borom fay Euh, man amala saalihan fali nafsi lu waaye liggéey ci lu baax yaa ko moom sonn nga ci daara ji trop te yàlla tax waaw dencatul dara amul dara lu mu am def na ko ci daara ji waaye nag defaloo ko daara ji nga sunu borom ko defal waaw yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ci ginnaawam di liggéey tàmbale ci soxna yi noo ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay. liggéey bi comme ni ñu nit ñu ko waxee alxuraan nag. doon na loo xamante ni sëñ bu mag bi waxoon na ni képp koo xam ni am na doom ju mën a mokkal alxuraan ci taxawu ko ba mu mokkal alxuraan ne lu ko jar ci àdduna gisu ko waaw kon nag nañ farluwaat bu baax a baax ci tool bi te xam ni ñëpp ko bokk comme ñu jublu ci liggéey bi rek comme niñ ñu ko sante woon bisimilah. bàyyi Moodu Silla bisimilah mooy njëkk a tàmbali gaaral nu alxuraan ju tedd jooju. bismillahi rahmani rahim. wasaari'u ila magfiratin min rabbi min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء في السراء والضراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا على ما فعلوا وهم يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا ميلا إنا أرسلنا إليكم رسولا سائدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول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 أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغتث سدرة ما يغشى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 حقا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم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 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس منها بقبس أو أجد على النار الهدى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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقصرات ماء سجاجا لنخرج به قبا mbokk yi jërë ngeen jëf kàbb teew na kàbb kenn desul Abdoulaye ngi toog jiw doom bokk ak fàllu bàyyi na seen ñaari maam yee bokk kenn balla soxna ay maam kii na dem bàyyi maam kee ñu bokk xëyee kàbb yàlla boole seen waajur ñu di bokk dëkk fii seenu dëkk la ba ci njaboot gi mu jur doom jox ko fàllu ba di ko jàngal ci daara ji delloo na kon waxtu sa ca daara jërëjëf kon teewaale nga kàddu gi yëpp ak caxaw bàyyam toog nii di doom yi ma dem ba di sunu bàyyi ñun ñëpp la kon jërëjëf taabili moo ko dul may waaye soxna may daf ma man fàllu dootuma ko sant dama koy ñaanal yàlla doom la maa ko jur mësuma ko taqale kenn mësta yàq samam xëy ci lu neexul yàlla mësta yàq samam ngoon ci lu neexul yàlla kon macha allah yàlla ko yàlla lafal ca fàllu bëgg na ma yéeram na ma yéer na ma bu xëyee bu may nuyu sax bala maa nuyu làmb sama yaram ba xam fu ci doom métti waaye yàlla surtout daal na ko lu may métti ba ca tegee loxo ba set ndax yërmande ju am ci mën a ñeewante loolu doy yóbbu na ma Màkka loolu lépp xam nga lu ma ñor ci fànn liy bàyyi ba bëggan muy diine ak alxuraan bokki na bëgg ko muy alxuraan nee na ma bàyyi ma ne ko amee ma weer yu mu mës a jënd daan ci moom ay bés te liiru te jàpp ko wet moom tam mu mës a jënd lu mu la fa rek moom am ci moom ñetti fan te fa muy jàpp la ko wet bu gisee dënmal yàlla xamatul jenn ba lu may wet kon Fallou bu juddoo foofu juddoo nag diggante kàbbak jaxaw ci ñaari maam ñetti maam yi maam lu mu def ci alxuraan dama ko ne lii du laa ci yem la war a def ëpp na lii Ablaye ma jur kàbb la dëkk doy na doy alxuraan ak ko Ablaye ma jur mbenn kaa ko jur rom naan laa dëkk alxuraan dong la ñuy jëfandikoo waaye soxna Maye ma jur ma jëlee ko xumaag la fekk sëñ Tuubaa mu seexal ko boole ko maam Ceerno ne ko demal mooy mot di si biir mu tëye ko juróomi yéen ci weeri noonu yi ko bët sibbee ko ca yoonoo mopp leen nawet te ceebam noor ba jàll la loolu ku mu ku ca bopp loo jëmu ci alxuraan ñoom ñëpp nag dañoo àndandoo li fàllu bëgg góor la ajee ko ci dindi ak ko ajaana xoola dongo yi nii ñu mel te nekkuñu seen yaay te boo xoolee ñu nekk seen yaay meluñu nii ceeb yàlla ci set ci buñ nga woppee aji du lekk aji dematul ngénte aji dematul ceeb tey jigéen ñu ndaw tey borom mi bokk dara joxul bu bàyyi ko lu dul alxuraan ak bëgg li borom këram di bëgg ne ci ginnaawam ànd ak ku xiif mu jox la rek ku tilim mu fóotal la sang ku wopp mu yóbbu la faji te kenn du woo say waajur sa yaay mbaa sa bàyyi ni ku ñëwal sa doom daa woo bu tawat naas waree kii koy def kon yéen alxuraan rek ngeen di yàlla na leen alxuraan fay na mu fayee sëñ Saliou sëñ Saliou dañ daa toog heure bi ñu ne woote nañu day root ñu ne day bay bay dagg ñu woote ñi ne dañuy bayee ka déqi ñu woote mbaj gerte kabar yi dugub jabar ñu di ko ñu bayu ko woon sëñ fa sëñ Saliou alxuraan la doon bay alxuraan gerte ga dem na dugub ja dem na waaye foo wóor ba tukku ci monde bi dajeeg alxuraan yi sëñ Saliou ku fa jànge loolu la fàllu muy bari. كلامك جرياك مصطفى سيدنا محمد سقبا ما سلي على محمد باي مرتلى مك جرياك سيدنا محمد Cheikh Bamba salli ala Muhammad Seydina Muhammad borom jàmm ak jamono Serigne Saliou Mbacké jara yaakaar fii ba fanu jëm Seydina Muhammad Cheikh Bamba salli ala Muhammad Muhammad balla ay sama cangay sëriñ Saliou Mbacké jara yaakaar fii ba fa nu jëm Seydina Muhammad الكدام السبب هدم يلمك أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا مسليا على الكريم على الورى يلمك أسكر دارس المجيد شكرا يرى مسلما على الويد بك الكلمة تينا بسكر دويس كسنين خدمتي باي نار بدي بلا لنا لو وفاك ولا نيوم كلو خدا بدايا بباي خدمة ماديا ودلي أراديا دارن دار سينبي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسكت صهينا من دار سواك للمصطفى الذي تراب له صلاة وسلام ابتداء كل حال من المكرم نجل ما كسل الله المان الجال قلب الوجود النهار وآلي ذوي النحال وصحبي وكرمه نجل ما كسل الله المدعو إلى خير النبي الفضل حين أكون الدلاء فتني وأسنا جل ما كان وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين للصياء إمامنا المحسنين نجل ما كان وسليا بنعمته على رسول رحمته أخلاق باب الأمة سبب كل نسم سيدي وسلم يا سمد على نبي محمد وعلي والأمد وكل ستر سمع رمبيل اليار البقاء والخدمة مني تخاب الخدمة إذا تقدم دوام المنير الأقم سينا بالباك خيار الربي ذاك المنير الربي ذاك سبيل طلبي حبيب أهل سقم نجل ما كان سلي الله الباب الحدى نايم دام ليس الإدامة إردا ما بالغ تصب يا رسول الله صل على الباب الحدى نائبا دامنا ليس الإدامة هردا نمجل يا رسول الله صل على الباب الهدى نائبا دامنا ليس الإدامة هردا باب الأولى وكرمنا xam naa alxuraan gi nga xam ni moom lañ bëggoon ñu waxtaan ci dañ ciy tënk tuuti rek alxuraanu karim moom la ne wax nii bu fekkonte ni ci àdduna mën ngaa jël sa loxo teg ka ci dara danga naan ni du mbindeef alxuraan rek lay doon alxuraan rek moo dul mbindeef ndax wax yàlla dafa sax ci jëmm ja te loolu lu leer lu neex a dégg la yont yàlla Moussa dafa wax ni su yàlla daan musaa wax ak moom da ko daan dégg ñun ko noo ko daan dégg mu ni dama ko dégg nopp sama jëmm jépp ñoo koy dégg te loolu bu la réere tafal say nopp boo tafee say nopp am na xarakaatu jismiya looy yooyu dégg riir mooy dégg loolu nopp dégg ko kon nga xam ne am na geneen dégg Moussa nag noonu la doon alxuraan loolu mooy wane ni kon wax yàlla dafa sax ci jëmm ja muy benn nee nañu alxuraan bu desoon benn kaamil ci kaw suuf ñu gas ko suul ko day génnaat nee na bu desoon benn kaamil ci kaw suuf ñu lakk ko ba mu jeex day farmuwaat nekkatub kaamil nee na bu benn kaamil ci kaw suuf ñu xooj ko ci ndox ba këyit yi xotti ko doowuloo lu muy jekkaat ko gisaat ko mu nekkatub kaamil lu muy tekki mooy fekk ñu ngi jàng alxuraan ci kaw suuf àdduna tukkeegut ndax li waral loolu mooy suñ boroom dafa bind ndox bind mbott bindu aw doj bind aw doj bind aw nag bind suuf teg ko ci kaw nag woowu mbott moomu ndox moom mu nekk bis bu ne day bëgg a jóg fekk si ndox mi ci kaw mu bës ko mu delluwaat nag wi nga xam ne moo téye suuf ci alxuraan lay dund feeg ñu ngi tudd yàlla di jàng du faatu ndax mooy mooy ak dundal su yàlla demee ba na mu àdduna tukki day yebal wenn ngelaw képp koo xam ni yaa ngi xamoon nga yàlla wala nga koy tudd wala ngay jàngal alxuraan ngay faatu moo tax ak boo déggee wolof di wax ni loolu dëgg di yàgg dana dana juum loolu dëgg dana yàgg ak kéefër moo fi jiitu te moo fi mujj te du dëgg léegi ñàkk jàng googu ñu jàng ñàkk jàng alxuraanu karim xamatuñu yàlla ndax ngelaw a jaar na fa ba a xamoon yàlla ñëpp faatu nañu kenn dutu xamante yàlla ay yéefa rek fi nekk suwaa nag dootu am lu mu dund buy dem di loof di loof di loof ba bi muy daanu ci lay tombeek yàlla digal malaake mu wal boftu bi àdduna door tukki moo tax fekk ñu ngi jàng alxuraan ci kaw suuf àdduna tukkeegut muy benn bi ci topp diis na diis goo xam ni moom alxuraan soo demee ci mufassirone bi ñuy leeral alif lam mim zalikal kitaabu biñ koy firi alif lam moom dañ ni yàllaa xam lam ca namm waaye dañ ni daalika loolu ma la digoon ci sanulqi alayka xawlan saqilan alkitaabu mooy téere bii mooy lan ci mu muzammil bi jibril ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi fekk ca xaaru xiraa yor melokaan wu mu xamul waaye du dikkul melo melokaanu malayka parce que bu dikkoon malakaanu malayka ak laafam yi mu yor du xaj ci xunti ma defe naa ñi jëm màkka xam na ni xunti ma boo fa demee guddaay bi mën na un kilomètre nga xam ne am na escalier yu ñu ko wutal yoon da yéeg ba àgg fa yont bi nekkoon muy xaaru xiraa boo yenn saa yi gis ko ci ay foto waaye xunti moom na mu tuutee sëy naa jibril borom laaf yu bare xaju fa jibril buy jóge ci asamaan ba génn mulku ba génn malakut di wàcc day soppiku jëmm ji day di wàcc di soppiku ba ëgsi moo tax yi ëpp di mu daan ñëw ci yonent bi nit laan doon di wax ak moom te loolu li koy gën a firndeel mooy malaaka yëpp doo dégg mel ne malaaka mu ci tudde doom jibril rek lañ ci tudde doom ndax jibril am na ba tey lu ko waral mooy sopp gi mu daan sopp ku nit di ñëw ci yonent bi ñu miin ko te doomu aadama lu taxoog moom mu jaxasoog yow doo gis nit ku tudd mikaayil doo dégg nit ku tudd israfil doo dégg nit ku tudd asraayil waaye dégg nga jibril ba tey kon li muy tekk mooy nit ki mu daan doon di ñëw moo tax melokaan daan sopp bu ñëwee ci mulku waaye bii ma lay wax bi mu ñëwee ci xaaru Hira fekk fa yonent bi melokaan yi mu yor du melokaanu malayka dëgg ndax xaju fa ku ne xam na ne aw laafam xaju xaju fa te xuntuma fiyee ko ëpp léegi nag bi mu ñëwee di ko sa alxuraan yonent bi sallallahu di diital ci gàttal mu mu mu xoj ko ba ba ba mu xam li mu wax mu bàyyi ko ci ëllëg sa ba mu tëddee ba sangu ci la ko door a gis ci jëxërën te booba jibril ñëwul ci moom dafa ñëw ci jaww ji mu ferenkulaay ak laaf yi yonent bi ni xinet fekk mu ngi sangu mu xool ko gis ko foofu la ko wax ne yaa ayyuhal muzammilu zëmmil mooy ku sangu ba nga xam ni lépp nee na malaj waaye jibril loolu amul kiiraay diggantam ak yonent bi sallallahu alayhi moo tax tur woowu la ko woowee waaye bi mu ko woowaatee yaayal mu dasir mooy ku sukkoosu mooy koo xam ni bi mu sàngoo muurul bopp bi loolu mooy mu dasir waaye yëpp mu ngi ko seen mu feranko laay ci jaww ji bu dul lii rek saa yi musaa ñëw ci moom nit la daan doon wax ak moom li muy wax ak moom dem su xisee ban maf ñam dox tuuti ba gisaluñ ko buy yëg di dem suy génn mul ko rek subaa lay lay door yoraat laaf yi nga xam ne moom la yoroon ah, eh, door a dem ci malakuut waaye bu xisee ba ñëw mul ko rek doomu aadama lépp lu yàgg saxoo taxoog moom mën na koo soppi kon loolu yàlla wax na ni ko damay wàcc ci yow dina lam wàcc naa dinaa wàcc ci yow wax ju dis gann loolu lu ko firndeel mooy yonent bi mu saana war naaga muy gëléem alxuraan wàcc ci moom su wàccul gëléem gëléem gi day daanu gëléem gi day tàll day tëdd ba tàllal ay tànkam ndax diisaayu wax ji wàcc yent bi di wàcc ci moom abdoulaye ibnu ibnu maktoum nee na ma sama toog moom mu jël ab wóomam teg sama kaw pooj di waxtaan ak man ba mu yàgg rek nee na maa ngi yëg sama pooj ni muy diisee ndekete boobu wax bi mooy ñëw ci yent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam nee na su ma rëccul woon sama tànk sama tànk man naa damm ndax diisaayu wax ji moo tax yent bi bu musaane dikk ci moom dootul nekk nit kese te loolu saa bu ñu xoolee ni wax yi daan wàccee demoon na ba mujj gi saaba yi xam nañu eh, ni yonent yi mel ñu xam ne mu ngi wàcc benn bi day dëngal loos fi lu yàgg du wax ñu xam ne mu ngi bëgg a wàcc wala mu ngi mu ñaqtoo xib ñu xam ne mu ngi bëgg a wàcc waaye bu mosaan ñëw ci moom daf daan dis gan ci moom loolu tax xale yi bi ñu tare alxuraan di jooy mënut ñàkk faw loolu di am na alxuraan moom moo moo diise noonu waaye nag noonu mu mel nag mu bari njariñ lool ni ni wax ni bi saar yi tegaloo ci kaamil bi bi alxuraan di ñëw tegaloowul noonu ndax dafa wàcc ci wàcc gu jëkk ci wàccu inzal waaye wàcc gu mujj gi dafa wàcc ci wàccu tanzil loolu borom xam-xam yi xam na li may wax maanaam inna anzalnaahu mooy inzal bi mu wàcc mooy dañ ko toxal lépp ci lawal mahfus benn yoon andi ko ci baytu ansi fii ci asamaan waaye nag wàccu tanzil gi mu doon wàcce nag mooy li jibril doon jóge ci moom ci ci suñu boroom ñëw ci yonent bi naa ko sa borom nee loolu nag diggante boobu toll na ci ñaar fukkat ak ñett te defe naa loolu boo ko bëggee xam mu gën a leer ci yow ci wàllu wolof mooy mu mel ni ku togg ak mbana ba mu ñor mu yàq ci bool yi loolu mooy wàcc gu jëkk ga lépp lan wa yàkkandoo ci booli bi rek ci cin li rek wàcc ko ci booli bi mu jeex waaye dëna la gi nii dëna la di séddale joxe dugal ci kër yi wala dugal dugal ci barab loolu mooy tansil ji loolu mooy wàcce gi nga xam ne yont jibril lay ñëw ci yont bi naa ko sa borom nee mu toll ci ñaar fukkat ak juróom Eh, ñett ah, eh, ibnu abbas abdullah ibnu abbas moom bi mu juddoo dama lay alxuraan ni mu mel ak ni mu doyee waar bi mu juddoo dañ koy yët yonent bi Muhammad mu tifli mu tifli ci gémmañam moom loru yonent la jëkk a moo taxoon mu meloon mu nekkoon kéemaan gu réy googu ci moom bi ne laa yaxlamu ila ila ilallah mu ni wala mu ni wala wala yaxlam taawilu ilallah bi ko alxuraan waxee

mu ne kenn xamul pirim ku dul yàlla man ci laa bokk yàlla xamal na ma ko loolu leer leer la ko may nag loolu mooy loru yonent bi saa sam jëkkoon ci gémmañam bi ci topp mooy nag li ma waxoon sànq ci alif laam miim ni yàllaa xam la mu ca nam Serigne Touba moom euh, nekk kéemaanu suñu borom goo ni jeexal téere yi taxul nga xam ci dara amag wilaay yi taxul nga xam ci moom dara da nga koy gëm topp ko rek mu seet lu ko neex ci moom mu xamal la ko waaye sëñ Tuubaa kenn du ko xam ndax dani fi ma nekk ak fi ngeen nekk bokkul waaye nag su ma bëggee wax yéen dama yor sama baat ba tolloog yéen wax ak yéen ngeen dégg ma su ma delloo fa ma nekk du ngeen ma xam waaye yenn saay ma ne ces kenn nag ba mu ñëw ci woon ma dee wàcce wàccewaat ko kooku su ma ko defee du yem ak du yem ak ñi mu fekk Sëriñ Tuubaa dafa wax ni demal ci xikmat Cheikh Ahmad Bamba laa wax ab téere la bu boo ni dañ faa dajale ay waxam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko dajale woon ci ci ci jamonoom dafa wax ni alif laam miim sama borom moo ma ko firil dañu alif gi mooy aw rastukal kitaaba Sëriñ Tuubaa nee na yàlla moo ma ne donn loo naa la alxuraan donn nag baatub donn koo ko déggee mooy la nga doon yàkka moom ndax ulama wu euh, usul yi dañuy wax ni juróom benn rek moo dagan alal jóge fenn ñëw ci yow mu dagan bu dul loolu feneen fu mu jógee xaraam na ba ci jëkk mooy lu na sarax te nga yeeyoo sarax dagan na nga lekk ko ñaareel bi asaka jun la jox te nga yore asaka dagan na nga lekk ko moo tax duñ tudd addiya ndax kuy jël euh, addiya du jël sarax moo tax duñ ko tudd bi ci topp mooy nit ku la lebal nga leb ko mu lebal la lam la lebal dagan na la lew na la doom bu la neex nga lekk muy ñett ñeenteel bi maanaam nit koo xam ni dafa bokk nit koo xam ni dafa faatu dafa faatu nga donn ko la nga ko donn lew na la doom dagan na la bu la neex nga lekk bi ci topp mooy nit ku la may xool ba mu neex la mu dagan na la leb waa nit koo leb nga leb ko mu lebal la lam la leb dagan na la dong ak ki nga xam ne dalaa may bu ko juróom-benneel nag moo ci gën nee na mooy loo xam ne da nga koo sa bopp te mu dagan boobu moo gën ci alal yi ñuy jëfandikoo ci ci doomu aadama waaye moo tax man la kon li nga nit ki faatu nit donn ko lam ko donn moo ko moom baata donn soo ko déggee mooy daa am ko ko moomoon rafaatal la ko moo tax mu ni alif ga mooy aw rastukal kitaaba yàlla nee na sëriñ bi nee yàlla moom rafaatal na ma maanaam donn loo na ma alxuraan mu ni lam nga mu ni laqantukal kitaaba maa la sa maanaa alxuraan ba nga dégg ko noonu kenn déggewu ko noonu yàlla dogal ak moom muy bind kaay bi wér dal ma lu sori ñëwaat yenn saa ma am ñaari fan jógaat kaay waaye góorgóorlu naa ci baaxul sëñ bi ak barke euh, Cheikh ba kaamil ba yegg keroog bi ma indee kaamil bi ba jox kaamil bi moom ko téye dafa xam ne sant naa la gërëm naa la ndax bindu kaamil lu métti la rawat na sa kaamil bii kon xam na la ma noon rek moom laa lay wax kon maam du du lu ma kenn wax man maa maa ko sëñ Saalu wax mu dégg bi ci toppit sëñ Tuubaa fonkoon na alxuraan fonk na xam ne lii sëñ Saalu moom ko wax ndax damaa bind juróom-ñaari kaamil ba am na kaamil ba ma ko bindee jox ko damaa jox mbubb ba mu ba ma ko joxee kaamil bi mu yónnee mbubb mu ñu dem jël di ko jëli ba mbubb ma ñëwee sëñ Saalu téye ko nii ci loxo boppam ni ma sëriñ bi dey képp ku ma su jox kaamil jox na la addiya addiya jooju la ci ëpp nag mbubb la daan doon sama mbubb mi nag yeesala naka addiya sëñ Tuubaa joojee kon loolu leer na man naa ko kenn waxuma sëñ Saliou wax moom moom wax ma dégg mbubb ma boo ñëwoon sama kër ma wan la ko kon dama lay wax nii la kon ñoom alxaan sëñ Tuubaa ci moom dinañ ko rafaatal alxaan mel ci moom nag noo xam ni lu jékki dayo la am na loo xam ni kenn ñi mu ko wax waaye loolee gaaroon Euh, Abdoulaye ibn Abbas gaar na sëñ Touba waaye ñi mu ma ko wax ndax média bi may jël moo tax waaye dama lay xamal daal ni la alxuraan dañoo am kaang su génnee àdduna ni ñuy wëree kaaba gi ni nit ñuy wëree kaaba di ko wër noonu la malaaka yërmande di wëree ab xabroom ba keroog saa yi taxaw am kaang mu génn àdduna laa wax moo tax xale yi alxuraan nekk ci ñoom ne leen bàyyi xel bu baax fekk ñu ngi fi suñ borom sax wax na ko nee na yenn saa yi ma mere leen ba nar a ndox waaye su ma xoolee jur gi ak gone yi jàngal xaan rek ma bàyyi ndox mi mu ñëw waaye bu du woon ak ñoom ma téye sama ndox ndax mooy gi ngeen may mooy kon ñoom te day ay gone yooyu tuut lañu doon amuñu bàkkaar teg ci alxuraan nekk seenu dëng kon ñooñu al secret suñu borom yu dox ci kaw suuf la bi soxna ñëw feet ne bu lu muy liggéey day jàngale rek day jàngale rek alxuraan moom ko jàng du métier ñoom loolu la wax loolu Sénégal wax xam nga lu garaaw a googu day jàngale rek ah jàngale ko loo ne amul moom liggéeyam dara day jàngale rek da seet jooju wax ju ñaaw. la ilaha illallah muy benn. Imam Malik nee na lépp lu ñuy fayee fayee ci alxuraan moo moo moo moo gën am maçon bu ba noppi ñëw taxaw ne la noppi naa xale bi ñëw ne la ustaas bi ne nga jox ma pay bi bala ngay dindi pay maçon bi di jox joxal ustaas ba noppi. lépp lu ñuy fay fay ci alxuraan moo moo gën te ñun moom lañ gën a xeeb waaye danoo xamut danoo xamut li tax xamuñu mooy alxuraan ëllëg jëmm lay doon nan bàyyi xel ci loolu jëmm lay doon su ñëwee ci biir bis penc bi bis penc leer gi muy yor dara du mën jaxasoo moom sëñ Tuubaa na mooy dugganteeg man moom lay wax ci bay doo kitaabu rabbi kaana li yokkundi loo walilaay bii sakkan waaye nag mu dawaan beneen bayit ci biir jaawartu nu si ani nuuru lisaani wal kitab azmaana xidmati la daa ahlil kitab mhm. waaye sëñ bi nag da koo bindaat waaye bayit woowu jiitu na ba mu koy dëkk bi nag suli ba li nuuru lisaani wal la bindoo léegi am ku mu sa waxal ci wàllu alquran ci mbir mbir yu xóot la woon mu am lu mu ko wax sëñ bi laaj ko fekk dafa jébbaloo ci sëñ bi laaj ko mu xamal ko ni ko dafa am lu mu doon jëfandikoo ci alxaar ngir yow sëñ bi ni ko lu muy ci jublu woon mun nga da nga fay nekk gëndu ñu xam ne boo ñëwee ngëneel gi day gën a yokk te xam na ne alxaar lu ci waay ñaan dina la may moo tax ñu ñaanal yàlla bëgg nga bañ a dellusi waat sëñ bi la la ko sëñ Tuubaa wax da ko ne ndax tuumaalu leen woon alxuraan mun nga dee mbàkke lu ñu ko tuumaal mun nga bëlee nga tuumaal lu ñu ci wax dëgg la waaye fekkar alxuraan la ma sama borom jox keroog la ko sëñ bi wax bayit boobu bindagul jaawartu ne ni ko su ni ba lii nuuru lisaani wal kitaab azmaana xidmati la daa ahlil kitaab ginnaaw bi mu bindee jaarut nag la soppi soli ba ñu def ko ñu andi nuur lisaan wal kon sëñ Tuubaa ci boppam alxuraan dafa dëkk moom mu taxaw moom moo tax gis nga fu mu mos a fekk amul benn néeg ci adduna bu mu mos a sañjal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dugal fa tànkam te yabawul alul quraan ñu dem wàcc falxuraan ba nag sëñ Tuubaa doolu dugg ci amul gépp kër guñ ko mos a liggéey ci kaw suuf sëriñ Tuubaa daaw fa dugal lu muy mu yabal am ñu Alxuraan ñu wàcc fay kaamil ba noppi Sëriñ Tuubaa doo dugal tànkam ci biir këram dub néeg lim boobu ñaar fukk juróom-ñett loolu ñu génn leen gane ko ci toppaat doon jàpp bi ci toppaat ba mu nekkee gànnaar bay ñibbisi xam nga ni ba seere Fall di ñëwee ci moom ni ko Mbàkke kayit wii ma la war ma la jox hmm. mooy wane ni mën ngaa ñibbisi lijjanti naa ko tubaab ba noppi sa bi ni ko am nga ndigal lu jóge ci tubaab nasaraan bi waaye amagul ndigal lu jóge suñu borom kon nañu tàgganteeg waa dëkk bi ba karoog ñu am ndigal suñu borom dooro yuq ajjuma jooju mu dëlsee la sëñ bi am ndigal suñu borom ajjuma la fa ñëw di gàmm waa ajjuma ja dëlsi sëriñ bi ñaari gaal ndax dañoo jaar ci dex bi dexab jug bi ngeen dégg mooy vëlëg Sénégal bi ngeen dégg mooy dexab jug lañ daan wax dex googu nag ci la sëñ Tuubaa jaar sëñ bi wut na ñaari gaal daal di tànn ñi nga xam ñi nga xam ne Alxuraan juróom ñaar fukki nit ak juróom lañu keroog sëñ bi ni yéen dugg leen ci gaal gi yéen dong jàng jàng yeeg am nga àndul xuraanam booba juróom-ñaar ci taalibeem ak juróom nga am ñun ñëpp ay kàng lañu ñoom la suñu gi mu ni mbooloo mi ci des nañ dugg ci genn gaal gi maa ngi yéen waaye nam dugg ci gaal gi nag dafa toog ci digg bi gaal gi ñii féete ka euh, kanam ñu neex bopp gaal sëñ bi ne leen jàng gis ñi ko fara ginnaaw mu leen leen jàng ma waxi mu ne yéen àndul xuraan rek dinañ jàng alxuraan ñaari gaal di tëmb. bi gaal di tëmbee yàlla dogal gaal gi sëriñ bi nekk gaaw gaawaay ba romb gaal gi ñuy jàng alxuraan nekk sëriñ bi ni nag leen ba ñu agsi ñu tax taxaw mu ñu ba se agsee mu leen yéen gaal gi ma nekk bu leen jiitu gaal gi ñu jàng alxuraan nekk ndax ñii di jàng alxuraan gaal gi nekk ci la suñu borom nekk. gaal gii ma nekk nag ak yéen maa ngi rasulaay ñoo ci nekk te yàlla kenn du ko jiitu loolu leen toppee bañ tayal gaaya fonk gi yemalewu ko woon man maa la wax lii moo tax bu ne ba jamono jii ñu ñu mu mel ni alxuraan daal maanaam ndax tegandaay la joo xam ne kenn xamul lu doon dañuy nax suñu bopp faw ñu delluwaat ci te fonk nag ñii nga xam ne ay jàngalekat alxuraan lu seen guddi seen bëccëg seen suba seen ngoom ñëpp ci alxuraan la nekk ñii bi alxuraan di lim ñi ne war a jox dañ caa bokk. dëgg la. allazina soro fi sabilillah hmm. mooy ñi ne tëj gawlee mënu noo dem. lu waral daara yeneen tey am na soxla yom buñ ko bëggoon dox bi mu ndax bis bi ñuy jàngale bu mën a génn tey hmm. kon dañ leen tënk lu leen tënkee ñu destam moo leen tënk julli tënk leen ba leen fi jógee jàngale leen doom ñu dañ a jox asaka hmm. daara def na ci joxe asaka waaye jàkk kenn ci joxe asaka jërëjëf ndax boo jëlu ci jàkk yi dem ci beneen jàkk julli rek hmm. waaye daara bu la neex nga dajal sa asaka ba man nga ñëw def ko ci daara ji am nga asaka su la neex nga jox ko jàngalekat yi am nga affaire defe naa ñi jaar daara xam na li ma wax suñu suñu bayee ba mbay mi noppi sëriñ bi bu génnee bu ñu génnee yi ndongo yi nekk ci daara ji dañ ci day jënd ay yére nangam nangam ak seen yenn jumtukaay bu ñu ko xaalis boobu kon ñii dañ leen war a fonk bu baax a baax. Hmm. te xam ne bu ñu wóolu ñoom du baax de. déedéet jërëjëf Ndiaye. Sénégal nag wax fi dëgg yombul. ndax naa feex gi daa bari. Hmm. dañuy fekk lu dëgg ñu def ko dëgg. comment ngi nii ne taxat. xam nga ni koor ngi nii déggoo fi kundum kundum déggoo fi musique déggoo fi dara léegi nag mu koor gi jeex ñu ñu yëkkatiwaat kenn ñu loolu baax na alxuraan yi doon dox ba léegi muy dox xasida yi doon dox ba léegi muy dox laa ilaaha illallaah ba léegi muy dox léegi jaaxaan yëpp dëggu leen ko doo dëgg dara du yëngu mooy dëgg nit bu faatu woon su la neex ngay jàng alxuraan di ko gunge su la neex ngay jàng xasida di ko gunge waaye doo dégg mukk nit ku faatu ñun nga ne gunge musique du am képp koo xam ne gis nga nit faatu ab jullit faatu ñu indi seen bi teg teg musique waatu wàccee musique dagan la waaye doo ko gis. nan bàyyi na fex dëkk lii mooy dëkk. moo yeneen ci yëpp ay jaaxal ñu baax ñi ci lii la nekkoon Sëriñ Tuubaa ci lii rek la nekkoon nan góorgóorlu sëriñ bi alxuraan bi sëñ Fallou Mbacke nett na ko nee na bi nekkee njaare kii bi nekkoon maanaam daara kaamil ji nekkoon sëriñ bi daana jóge ci daara ji di ci jàkk ji jaar ci ñun toog ci daaray kaamil yi jël ab jukki jàng ma noppi dem ñooñu ñooñu mu am lu xuraan mooy ñi nga xam ne bis bu ne ñu gis sëñ Tuubaa ñooñu mooy am lu xuraan bis bu ne sëñ Tuubaa gis ñu gis sëñ Tuubaa ñooñu sëñ Tuubaa fonkoon dëgg dëgg mas naa ñëw ci daaray kaamil ñu leen yéen de bal yi ngeen dégg ci biti booba guerre 98 tàmbali na sëñ bi neen bal yi ngeen dégg ci biti hmm. li tax dikkul fii hmm. alxuraan yi yéen jàng moo ko téye ba dikkul fii hmm. kooku yemul woon alxuraan dara ñu hmm. góorgóorlu عن الباقي فيسر خير سلام رجاء عن الباقي فيسر خير سلام الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني